Euh, waxtaanee découverte ak euh, soxna Bessel bi nga xamante ni indil nañu euh, kon yenn ci ay plats traditionnels yu ñu gis foofee ci Dionewar jërëjëf jéna ba comme ni nga ko waxee rek dañuy daal di dem Dionewar seetaan ni nga xamante ne seen faro yi faro yi nag buñ ko waxee maanaam mooy déggu ceeb bi nañ dem seetaan leen daal di dellu si waat di leen dalal dara jàmm si dëkk cosaan bi ngeen ñëw tey muy dëkk bu ñuy wax Jimsaan Jimsaan gis ngeen ko ni mu toll buñ ko wàññee sax vingt kilomètres jot na ko mbaa mu upp ko waaye fii tey ma ñëw mooy dëkk Jimsaan si cosaan suñu yaay yi ak suñu maam yi ak suñu yaay yi fii lañ leen daan fekk ñuy béy ñun ak waa Ñoojoor ñu nag waa ñoo jor nag ñoo bokk suuf si ñoo bokk suuf si di ko bay waaye ku nekk di nga fi am suuf boo fi jógee itam jonwaar li muy rëy yëpp kër goo gis kër goo dugg si jonwaar am nañu su fi suuf si jimsaan bi jimsaan nag def si mbéy foo xam ne suuf soo xam ne suuf suufu saan la ñu daan fi bay waaye dañoo dema dema dema dema dem ba océan bi ñëw géej gi nangu euh, euh, suuf si xorom si tax wax dëgg yàlla suñu jëkkër yi nga xam ne ñoo fi mujj ak suñu nijaay yi ko mujjee di béy ak suñuy doom yi ñu di ko euh, ñu arrêté mbéy mi di yem si dëkk jon waar fii ñuy béy ceeb bi tey dañu fas yéene buñ ko béyee ba mu baax dañ koy jaay waaye du tere nag ku nekk di nga am loo yóbbu sa kër parce que lool la ñu bëgg ndax looy liggéey da nga soppali am xaalis waaye da nga am loo xam ne da nga ko yóbbu sa kër pour dund moo tax ñu ñëw fii tey fii ñu ñëw nag ñun jigéen ñi gis ngeen jigéen ñi ñoo fi ñëw waxtaan ak dëkk bi man dama woo dëkk bi yëpp woo leen waxtaan ak ñoom ndax fii ku ne daf fi am tool te mënuñoo toob rek ñun projet bi ñëw di fi béy gis nga jigéen ñi ku nekk yaa ngi béyee euh, góob bi ñii di jël lii nga xam ne mooy suñu cosaan ah coono bi dina metti dina bari waaye nag suñuy jom bëgg suñu développement réew moo tax ñu di ko def nag kon loolu ñu ngi ñaan lu ngeen si man daal ngeen wax euh, def ko ba nga xam ne day yëf yi day jàll na jàll ba ñëpp mun a gis jigéen ñi waa Dionewar si li ñu fas yéene di ko liggéey may wax itam si turi turi dëkk bi yëpp te di jigéen ñi jigéen ñi ne boo demee rek dëkk boo dem rek di nga xam ne jigéen ñi ñoom ñoo yor ñoom yor àdduna. <laughs> oustaz gis nga jigéen ñi ñoom ñoo nekk ci toolu ceeb bi di bay. bu paree ñëw togg ko tegal ko góor ñi ñu lekk am na sax ñoo xamante ni duñ la wax merci wala sax ñu pousse ko ak seen tànk yi. lii laay wax ah. góor bu baadoo <laughs> moom ngay tegal ñam mu fël ko góor bu baadoola mooy joxe dépassam ba noppi joteek jabaram gedd mm. góor bu baadoola mooy toroxal jigéen góor bu baadoola mooy yor ñaar fukki junni soxlaam soxla soxnaam soxla ñaar téeméer. Mm-hmm. mu jox ko ñaar fukk ne ko yoruma dara. mooy góor gu nay nekk sàmba àllar ci mbedd mi. Mm-hmm. góor bu baa doola mooy góor goo xam ne bu duggee këram fas fas kanam gi. Mm-hmm. bu génnee ci biti fecc kanam gi. góor bu baa doola mooy góor gi nga xam ne njabootam bu tukkee du bëgg njabootam dana ko namm. du bëgg mu ñibbisi góor bu baa doola mooy góor bi nga xam ne jabaram da koo ragal. ay doomam ragal ko ay jarbaatam ragal ko góor bu baadoola muy góor gi nga xam ni Adja Jeynaba. incha allah Youssou ngi jël note ni ngay wax ni yëpp dina ko way ba pare ne oustaz Aan waxoon na ko. li ma lay wax nii du ay nax de mi ngi jël note. besel nay moom nay waxoon na <laughs> ah, ndax yonent bi moo ne albaqiilu laa yadxulul janna am nay dugg àjjana. ma ne ah, nay du dugg àjjana <laughs> xaribun a naari baidun a janna nay dafa jege safara a àjjana li ngay wax yëpp bind na ko dina ko def way way la koy def góor dafay galant góor day teral jigéen waaw <laughs> góor day fecc kanamam waaye boo génnee ci mbedd mi fecc boo duggee sa kër fas sa kanam ah, kooku de am na nañu fecc bi <laughs> alors Bessel euh, gis nañu doon waa jigéen ñi nga xamante ñi ngi ci tool wa di def euh, ceeb bi nga xamante ni moom la ñuy jox seen njaboot waaw jéena ba boo xoolee euh, fi ñu demoon fi nga xamante rek euh, moom mooy jën waar euh, xam nga béy dafa am lu bëri lu mu àndal parce que nit ku wóolu yàlla rek mooy jël peppu ceebam dugal ko ci suuf si xaar pour mu sax mm. waaye bu ñu xoolee si biir euh, image yi di ngeen gis bu ñu ñëwee di béy ba pare jigéen yëpp bu nawet jotee dañuy dajaloo bu ñu dajaloo si seeni déeg am na benn déeg boo xam ne at bu jot foofu la ñuy njëkk dem dem daal di tari ay fatiha daal di jël seeni naq bu fekk bu fekkee mun nañu ko wanaale si image yi mm-hmm. ñu wanaale ñu ko ñu daal jël nag ceeb bi nga xamante ne la ñu béyoon Mm-hmm. moom la ñuy xooj dëbb ko def ko ay nàq def ko suukar yóbbu ko ci tool yi mm-hmm. def sarax d'abord ba mm-hmm. pare balaa ñuy béyaat ceebu bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a béyaat mu nekk loo xam ne nag seen cosaan la nee na ñu ñemewuñu jékki-jékki rek béy ceeb te defuñu ay sarax ñaanu ci déeg yi pour déeg yi gën a naat pour ceeb bi tamit gën a law gën a bari mu nekk loo xam ne jéena ba lu am solo la mais bu ñu xoolee euh, si biir image euh, ñu xool jigéen ñi ni ñu nekk di yoree li nga xamante ne moom mooy seen utile euh, yi nga xamante ne moom la ñuy béyee mu nekk loo xam ne lu diis la mm-hmm. lu naqari la te ku xam déegu ceeb dafa metti torop torop torop parce que ceeb bi dafay sax nga daal di koy buddi dem jiwaat ko fi nga xamante ne moom mooy feneen moo tax bu mbay luñ ñu ko jaayee rek yaakaar naa ne jar na ko que dafa waa mhm. mu ngi noonu dafa dafa dafa metti mbéyu ceeb dafa metti des fois ay jaan dañuy nekk si biir te maire ci noonu la ñuy xoojoo seen tànk yi yëpp ci biir xam nga ay risques yu bëri moom moo nekk si bu mbéy mi mhm. kon bu ñu jëlee tey ceeb bi nga xamante ne dañ koy importer di ko jaay lu gën a cher ñu jël suñu ceebu mbéy ñun ñu gën koo euh, jox ay prix yoo xam ne prix yu yomb la tamit war nañ ko xoolaat bu baax a baax mhm. parce que jigéen ñi sonn nañu ci déegi boo demee anambe nga xamante gën a ceeb muy anambe Euh, nit ñi liñ fay daj metti na kon nag nañ jàppale suñ jigéen yi Dieynaba jigéen ñi ngi fépp nee nañ boo bëggee réew dox da nga koy dénk jigéen ñi mm. donc c'est important li nga indi euh, euh, Bessel surtout wane jigéen yi ñoom ñoo mën góor ñoom ñooy indi ci kër ñooy lijjanti kër ñooy lijjanti gone donc jaaraama yéen jigéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci kaw ga mais aussi jigéen ñi am ay activité professionnelle fii ci réewum taax aussi di ko def na mu waree beaucoup eh, Bessel ci li nga indi eh, ci kanam danañu dalal